asalaamaaleykum mbokk yi seetaan RMB TV amati nañu waat mbégte ak kontaante bu baax a baax dellu si waat seen beneen i numéro ci émission yow la kan émission yow la kan nag saa su nekk ni ñu koy defee di invité artiste comédien wala ñu invité comédienne toog waxtaan nag moom ci li nga xamante ni moom mooy jaar-jaaram ci li nga xam ne mooy vie ak li nga xamante ni mooy métier bi di théâtre tey nag ki ma dalal nekk waajoo xamante ni ne wax naa leen moom tamit kenn dootu ko présenté ci réewu Sénégal. nekk ndaanaan nekk professionnel àdduna bi yëpp xam ko muy bay waaram bu baax a baax ci métier bi nga xamante ni moom mooy théâtre dem fu nekk jouer lu nekk wax lu nekk macha allah rabbi du ma def lu dul bàyyi leen mu nuyu ñi nga xamante ni moom moo koy seetaan ñu xuus si waxtaan bi Cheikh Sarr xaritu Idrissa ak Aba maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw Babacar maa lay nuyu di la siyaar baax a baax a baax di rafetlu émission bi. di eh, di nuyu képp kuy seetaan eh, RMB TV ah mm. RMB waaw di leen eh, jaajëfal bu baax a baax di nuyu fi mu jóge muy Pikine ji da caaree kaw mm. di leen nuyu bu baax a baax a baax rawatina waa guy Fatou Mayga mm. parce que fala yeewoo di nuyu suñu waa kër bu baax a baax rawatina sama yaay mi nga xam ni aw ma ku dul moom ku ma xulool sax su ma la tooñee man lay faral kon sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax di di sant Eh, suma ñaari jabar yi ma bàyyi foofu noonu. Mm-hmm. muy xadi eh, xadi Dieng ak xadi Saar ak sama rakk yëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax aji. macha tey bëgg nañ xam yow la kan. <laughs> man la kan moom loolu xam naa ba ma ko laajtewee eh, genre yomb na tontu yombuwul tontu. parce que tamit nit ki booy wax lu baax ci sa bopp dañuy dañ naan ah li mu nekk moom rek a tax mm-hmm. mais euh, nit ki tam ak lu la nit ñi xam-xam-xam-xam yow yaay gën a xam sa bopp parce que ku wéet xam nga sa bopp du dëgg waaw man nit laa koo xamante ni nii euh, nit ku modeste laa comme ni ko nit ñi di waxee euh, nit ku bëgg jàmm laa foo ma gis damay ree comprendre nga bu ma amee nit problème sax man damay génne wu parce que bëgguma di am ak nit ñi problème léeg-léeg nag dinaay mer waaw dinaay mer mais ni may ni meree noonu laay jiifee mm-hmm. parce que tamit loolu yëfi nit la mm-hmm. comprendre nga damay mer damay kontaan damay damay damay damay damay soulager comprendre nga eh, ku bëgg jàmm laa wax dëgg yàlla te fu ma nekk damay bëgg ñëpp am jàmm mm-hmm. waaw te te te te loolu nit ñi waxal nañu ma ko te man tamit xam naa ni ko boobu noonu mi ngi ci man wax dëgg yàlla waaw en grosso modo daal Cheikh Sarr nit la koo xamante nii nit ko modeste la nit ko yaatu nit ko bëgg jàmm man bëgguma lu dul jàmm mm-hmm. waaw bëgguma tamit lu dul nit ñi am jàmm mm-hmm. waaw waaw ci tënk daal mm-hmm. Cheikh Sarr ngi noonu macha allah loolu am na solo tey euh, Cheikh Sarr mu ngi noonu tey Cheikh Sarr maanaam ginnaaw moom bi nga xamante ne ni waa koñam xam nañ ko miin nañ ko xam nañ moom mooy kan euh, Cheikh Sarr bi mu nekkee xale nu meloon

daf ma ma yow xale bu yaru nga woon xale bu set nga woon xale boo xamante ne nii dusteur fu mësaan a jot yow yaay jooy sax ne yaay sang ma su ma la sangee ba pare ci buntu kër gi laa lay teg grand yi nekkoon foofu noonu samay doomu nijaay ak samay doomu bàjjen comprendre dañ ma doon fab di ma yóbbu di ma indiwaat parce que tellement que damaa set boo ma tegee fenn foofu laay toog du ma déranger du ma def dara beaucoup de, bokku parce que man suis un mm-hmm. ak ak ak ak quoi à l'âge de sept ans huit ans comprendre nga mm-hmm. neuf ans mais nak, bi ma ba am ba am dix ans nak jëm kaw waaw que commencé mm-hmm. Dama commencé nak changer. waaw te xam nga après sama yaay mu baye sama xam nga yaru maam rek <laughs> waaw yaru maam ñu nekk ci nekk ci man ak sama benn doomu yaay bu ñu naan bu ñu naan Tamsir maa ngi koy nuyu de passage hmm. moom tamit ak sama beneen doomu doomu ndey bu ñu naan mentor moom tam maa ngi koy nuyu de passage wax dëgg hmm. yàlla ñu nekk noo sama néegu maam hmm. sama maam bëggul ku ñu laal buñ ko indilee ndékki ci ndékkee bi la ñuy ndékki buñ ko indi indilee añ ci añ bi la ñuy añ buggul maanaam buggul bugguñu buggul ku ñu laal lu ñu neex lan doon def legui nak affaireu affaireu jeunesse nak commencé ñoo japp nak affaireu mm-hmm. jeunesse legui ñu dem geej waay mm-hmm. nek fofu nonu yar ay xaj di dugg ci amo yi mm-hmm. di yelwaan agni di añandoo ak xaj yi ko ci sama enfance ak yeneen <laughs> macha allah am solo macha allah ku nek jaar na ci xalé ku nek tamit fona ku nek tamit war na xam mémoire am ci li nga xamanté mom moy jaar-jaar après Cheikh sar màgg ñuy dem ñu dem ñu dem ba ci yag Cheikh sar nek artiste comédien tey Cheikh boo ñu doon wax artiste comédien mooy lan. waaw xam nga boo nee artiste yaa ngi wax art. Hmm. waaw léegi nag comédien yi. loolu nag métier la. Hmm. comprendre nga artiste boo ko waxee yaa ngi wax art. comprendre hmm. boo nee boo nee man artiste laa rek comprendre nga. Mhm. yow maanaam ëmb nga lépp. comprendre sax parce que boo nee artiste laa. peintre bi ci la bokk. Mhm. fecc mhm. yaa ngi comprendre fecc. xam nga nag boo nee boo nee man artiste comédien laa. kon yow am nga foo féetale sa bopp. boo nee artiste. peintre la am na foo féetale sa bopp boo ne man artiste musicien la wala compositeur wala chanteur wala danseur ba pare yow am na foo foo foo waaw comprendre mm-hmm. foo bokk quoi. Mm-hmm. mais ñun nag suñu idée kii bi ñu yor. Mm-hmm. mooy que ñun ay comédien lañu artiste comédien lañu. li na comédien nag dafa dafa dafa doon loo xamante ne nii maanaam euh, da nga koy da nga koy mat comprendre comédien kenn du ko doon waaye dañ koy mat. d'accord c'est parce que tey jii nii maanaam mën nga dégg nit ñi naan kii kii comédien la kii comédien la kii comédien la alors que. matu ko matu ko. merci comprendre mm. parce que comédien il a mm. à travers le métier à travers la société sénégalaise mm-hmm. bi comme mm-hmm. Sénégal à travers ak réalité d'accord c'est ça le comédien mm-hmm. à travers ak nit parce que si on théâtre théâtre sur scène c'est théâtre d'accord te théâtre sur scène dafa am ay jikko yoo xamante ne nii yow comédien bi yow da nga ko war a jikko woo avant mm-hmm. tout d' abord mm-hmm. avant tout d' abord mm-hmm. ginnaaw bi la yàlla defee nit ba pare yaa ngi dégg te xam nga yàlla dafa ni inna jaal naa xalifatul fil ard comment man yàlla man maa jël nit def ko sama xalifa ci kaw suuf waaw léegi nag comme que yàlla moom moo jël nit def ko xalifaam ci kaw suuf mm-hmm. comprendre ba pare nit ki wëlbatiku nekk nekk comédien mm-hmm. comprendre kon am na ñaar yoo xamante ni mi ngi lay xaar benn yow xali xalifa yàlla nga ci kaw suuf bopp en même temps porteur de voix la d'accord yaa ngi gis loolu mm-hmm. léegi nag porteur de voie bi léegi moom yan comportement la war a comporte woo ki nga xamante ni maanaam yow miroiru société bi maanaam société bi ci yow la ñu war a référé woo waaw est-ce que seetu boo jàkkaarloog seetu bi di seetu est seetu bi bu poussière est-ce que di nga gis sa bopp est ce que bu seetu bi lëndamee hmm. est ce que di nga gis sa bopp hmm. kon nag balaa ngaa bi fomp ko ba pare hmm. kon yow comédien bi balanga don doon comédien ba pare amal say jikko yoo xamante ni di nga ko defar avant nga ñëw ci théâtre macha allah loolu am solo te yaakaar naa ñiy émission yow la kan ci RMB TV ñu ngi commencé toogaat ci li nga xam ne salon yi wala soir ñu defaraat seen toogaay ci marché ba ci sax seen place yu liggéeyukaay yi tey moom yaakaar du yomb tax Cheikh Sarr artiste comédien la boo xamante wax rek la ngeen ko koy gis ni ñu dem ba ci kanam wa cheikh comme tay ni nga waxe manam ndax ndax ku saf xorom rek di sol caaya di fecc ci bedd ko comédien la dedet dedet déedéet hmm. mënu ñu ko tuddé comédien hmm. c'est parce que sa ci sama biir wax néna manam comédien métier la comprendre hmm. comédie métier la comprendre nga c'est parce que ben ben ben ben aspect la ci théâtre comédie benn aspect la ca théâtre mm-hmm. léegi nag euh, souvent da ngay gis ku neex ñu naan ñu naan ko yow de war nga mën a dem di fi théâtre mm-hmm. waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant euh, président Diomaye mm-hmm. bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga lu tax parce que pour euh, ñu signé décret bi nga xamante ne nii mm-hmm. yàgg nañ ko jooy mm-hmm. comprendre nga yàgg nañ ko jooy mm-hmm. yàgg nañ ko jooy depuis Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall comprendre nga ba ci journée mondiale du théâtre bii passé rek comme ay ñoom Mère Sène ñoom ñoom Baye Ili comprendre nga consort googu noonu yëpp magu théâtre bi yëpp taxaw mars nañu grand théâtre ba ba buntu palais ngir rek euh, euh, Macky Sall signé loolu noonu mais président yi moo ñu ko signé léegi nag reconnaître nañu suñu théâtre bi nag comme métier. Mhm. léegi bu ñu reconnaître suñu théâtre bi nii comme métier kon léegi ñi nga xamante ne nii ñoo doon neex neex lu di nekk ci mbedd yi. di def mhm. lu leen neex. nañu xamante ne nii nag léegi nag désormais. Mhm. léegi nag maanaam amatul képp ku neex rek ñu ne la yow demal defi théâtre théâtre métier la léegi reconnaître reconnaître nañ ko. comme métier kon alhamdulilah rabbil alamin léegi nag ñiy neex neexlu nañu dem jàng ji métier bi. bu nekkee moom la ñu bëgg a jël. Mm-hmm. def ko comme métier. Mm-hmm. parce que Babacar gis nga tey jii nii ñun ñi nga xamante ni maanaam ñun la ñuy woy soi-disant metteur en scène parce que man moom euh, dama koy wax. dama naan man du ma metteur en scène man mm-hmm. encadreur laa parce que man defuma formation metteur en scène man formation comédien laa def parce que man artiste comédien laa comprendre nga munuma mënuma nekk comédien ba pare ne man metteur en laa c'est parce que mm-hmm. defuma formation boobu noonu mm-hmm. man encadreur laa mm-hmm. dama lay encadrer ci métier théâtre bii nii ñu nekk nii léegi nag ñi nga xamante nii ñoom ñoo am diplôme metteur en scène ñooñu la ñu war a tuddee un metteur en sax beneen waxtaan la mais xaaral ma tontu ci question bii nii nga ma posé muy que euh, nit ñi nga xamante ni dañoo neex ñu leen di tuddee ay comédien nekkuñu ay comédien d'accord nekkuñu ay comédien mm-hmm. parce que comédien métier la Mm-hmm. léegi nag désormais képp ku bëgg def métier boobu noonu mm-hmm. da ngay dem jafañ fañ koy defee ca fañ koy mm-hmm. nga dem jàngi métier bi théâtre métier la macha allah euh, théâtre métier la loolu su ko waxee war nañ koo gëm bu baax a baax a baax parce que comme ni mu wax tey jii ñi nga xamante ni dañoo génnee école beaux arts ñu ngi si réewu Sénégal bi fees fi dell ku si mel ni papa Mamour Thioune Omar Cisse euh, grand Makodou grand grand Ibrahima mbay Soppe Makodou dem si yàlla si ah ñoom layti ah, Ibrahima Mbaye ah Alassane Leyti Fall ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bëree bëri ñu ngi fi. ñoom Asnia macha allah ñooñu noonu ay formateur lañ ñoo xam ne mën nañ la former ba yàlla suñu borom dem ba def la yow mi tamit ngay def mise en scène maanaam ñu lay woowee mettre en scène mais formateur moom wax dëgg yàlla moom ay ñooñ lañ si xam ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi bu baax a baax nga dem Blaise Senghor wala Maurice Gueye wala Douta Seck wala Grand Théâtre wala Sorano foofu yëpp dañ fay jàngale li nga xam ne moom mooy métier bi nga xam ne moom mooy théâtre waa seex lan moo la dugal ci métier théâtre waaw loolu euh, yaakaar naa man depuis euh, bëgguma sax di wax année bi ma commencé théâtre parce que yàgg na trop. Mm-hmm. fii am na ñu fi bëri ñoo xamante ne nii. Mm-hmm. dañuy wax rek ma noppi. Mm-hmm. Euh, man depuis deux mille deux mille quatre laa commencé théâtre. deux mille quatre laa commencé théâtre. seede yaa la 2004 ba léegi kon xam nga ni yàgg na mm-hmm. depuis boobu maa ngi ci tey c'est parce que man euh, dama bàyyi jàng yàggul sax même bi may jàng sax maa ngi defaale théâtre mais mm-hmm. instant yooyu noonu sam papa dafa dafa dafa bëggoon ma focus ci jàng bi mm-hmm. parce que man euh, dama jàng franco arabe bàyyi ma dem sam papa yóbbu ma daara bi ma yóbbee daara dafa buggoon nag ma jàng wax dëgg yàlla. Mhm. mais maa ngi doon boole ñaar yëpp nag. maa ngi mhm. doon boole théâtre bi ak jàng bi mais après nag par la suite. Mhm. Euh, ki ki ñu doon jàngal maa ngi koy nuyu moom tamit de mu ngi fii mbaaw léegi. Euh, ñu naan ko Babacar Ndaw moom tamit euh, mu nekk borom xam-xam boo xamante ne nii ñun ñi mu jàngal alxuraan ñun nangu nañ ni moom. borom xam-xam la mi ngi fii mbaaw léegi eh, maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax jootu mm-hmm. stade bi rek la dëkk mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax suñu sëriñ boobu noonu mm-hmm. mais depuis boobu nag maa ngi ci métier bi quoi kon bu ñu neen Cheikh Sarr ban année la dugg ci théâtre man 2004 laa dugg ci théâtre lan moo la ci dugal waaw li ma ci dugal mooy maa ngi nuyu sama metteur en muy Aziz Naar moo ñu dugal ci théâtre parce que ñun Euh, lu ci bëri këram lañ doon fréquenté parce que këram man ak saalif ak bébé ak Cheikh Ndaw ak ak euh, waaw ak ñoom Alsane Diagne ñooñu ñoo nekkandoo woon di foondoo mais këram la ñuy ëpp li ñuy nekk léegi nag bi doon xëy di liggéey ak moom moom maçon la woon quoi. Mm-hmm. bu ñu jàng moom la àndal mu yóbbu ñu sànce mais. Mm-hmm. bu ñu fekkee ñu ñuy waxtaan ak morom nii da ree ba sonn. Mm-hmm. léegi nañu booy pourquoi pas mënuñu ubbi troupe théâtrale ñu ne ko ah loolu mën na nekk ñu xëy maçon ba non ñu xëy muul parce que parce que moom da doon mool di di tabax mm-hmm. di peintre di def lépp waaw mm-hmm. ah, mën naa ko tuddee sax lom douze métiers moom Aziz jàmbaar la dëgg yàlla léegi nag ñu xëy muul ba pare ñu wàcc mun nañu léegi kaa leen ñu réunion ñu dem ko ñoom mbëru ñu toog foofu noonu réunion léegi nag foofu nag la ñu commencé nag ñu mhm. foofu noonu. Mhm. léegi maanaam neex googu noonu. Mhm. ñu ñu ñu neexoon loolu moo ñu dugal. ci ci théâtre day nag mu tuddee group bi Daaray Dunya. moo tax Daaray Dunya boobu noonu. tur boobu noonu moom mooy law ba ba léegi. d'accord Daaray Dunya boobu noonu deux mille. 2004 ba léegi Daara Dunia boobu mooy law mooy law. d'accord comprendre kon man damay taxaw ne man Daara Dunia sama héritage la man. parce que 2000 2004 ba léegi. maa ngi Daara Dunia ba 2000. 24 maa ngi daaray dunya musuma bokk benn turub mhm. bu dul daaray dunya mhm. musuma bokk benn arko bu arko géejawaay lima mooy sama carrière artistique musuma bokk benn turub bu dul daaray dunya musuma bokk beneen arko bu dul arko géejawaay yàlla dogal ni ni théâtre di théâtre teater théâtre comme comme jamono jooju théâtre populaire moom ëppoon. Mm-hmm. ñu nekk ci ñu nekk ci nekk ci nekk ci di compétir deux mille deux cinq ba deux mille treize. Mm-hmm. lu ñu teg géejawaay ñoo koy jël lu ñu teg Pikine ñoo koy jël. Mm-hmm. Euh, ñu compétir compétir ba tan bombe mujjee ma gis ne ma César compétition yi nii bàyyi ko nga dem fexe ñu xam la deux mille treize. ndeysaan ma arrêté. comprendre Assane Diaw ñëw fekk ñu ñuy répété mu ne ñu est-ce que du ngeen génn fii ngeen nekk ngeen ñëw bokk ak ko géejawaay. ma ne ko Alassane Diaw loolu de wax dëgg yàlla man moom ñemewu ma mu ne ma pour pourtant say morom rek a fa nekk te am nga talent bi. ñëwal foofu. Alassane Diaw ku baax la moom tamit. Mm-hmm. dafa joué ci sama carrière moom Alassane Diaw. Mm-hmm. waaw dafa mm-hmm. joué sama carrière moom Alassane Diaw maa ngi koy nuyu bu baax. parce que tey dafa def ñaar yoo xamante ni marqué na ma trop biñ ma takkalee jabar moom moo ma njëkk a woo ne ma César waxal alhamdulilah rabbil alamin takk premier appel am. moom laa njëkk a recevoir. moo ma yóbbu artu géejawaay mm-hmm. ma dem bokk foofu noonu artu géejawaay lañ ma xamee mm-hmm. parce que bi ma ñëwee artu géejawaay bokk naa ci jeunes yi nga xamante ni spectacle bu maanaam euh, festival bu am mm-hmm. damay bokk ci sélection yi festival yëpp nag man may seul comédien boo xamante nii géejawaay bokk naa ci ci sélection festival yëpp comprendre mhm. te loolu noonu grâce à Alsane Diaw mhm. grâce tamit à Cheikh Mbacké mhm. grâce ak euh, Ibou Fall moom mi nekk euh, Moustapha Ngom waaw Moustapha Ngom comprendre nga ñooñu ñooñu encadré Dédou Bab Tan Bombé Tan Bombé comprendre nga ñooñu encadré comprendre nga ñemeleewuñu léegi nag ñu découvrir nag beneen théâtre mais ñu découvrir nag beneen taat ñu xam ne en ah, ndekete kon dëgg-dëgg théâtre lii la ñu nekk arko waaye mm-hmm. comprendre nga la dogal Mamour Thioune ñëw foofu noonu mm-hmm. dañ defal ay formation mm-hmm. comprendre ñu gën a xam ni nag ndekete nag théâtre lii la ndekete théâtre nekkul ay fo ndekete théâtre métier la boo xamante ni dañ koy jàng parce que naka ngay taxawee ci scène comprendre nga lan moo lay déplacé loo bonne motivation nga am say maanaam trajectoire yi da koy respecté mhm. ligne gauche ligne droite diagonale mhm. gauche bi mhm. yooyu noonu yëpp ñu jàngal ñu ko ci théâtre ba ñu xam ndekete bu ñu taxawee di déclamer texte nii la ñuy waxee texte bi nii la déplacé woon comprendre nga compréhension di texte ñu jàngal ñu ko ñu xam ko comprendre intonation wu texte yi ñu jàngal ñu ko ñu xam ko ba tey jii nii fu ñu waxee ci théâtre dañuy nangul kon lii mooy sama jaar-jaar. ci mhm. théâtre. macha allah <laughs> loolu am na solo émission yow la mu ngi gën a neex macha allah wax dëgg yàlla parce que ku déglu kàddu yi rek xam na ne jàng na métier bi bu baax a baax te nekkul loo xamante ni da koy fooyee wala da koy caaxaane euh, ñuy dem euh, depuis 2004 daaray duniyaa boobu am ñu dem lu yàgg-yàgg daaray duniyaa fay après ñu dem ba ay jamono. ñu gisaat beneen daaray duniyaa su ma jiimul bii mooy quatre quatrième catégorie daaray duniyaa xaw ma troisième. troisième waaw troisième. lu tax loolu. waaw trois léegi nag li tax loolu mooy euh, bi daaray duniyaa fayee première génération bi parce que am ñu si nekkoon ñi dem sëy ji. Mm-hmm. ñi tukki ñi nangam ñi nangam. Mm-hmm. comprendre nga ñi mm-hmm. gëmuñu aar bi. léegi nag bi daaray duniyaa boobu tasee Idrissa euh, moom mu doon jàngee euh, Njawar Jaañ mu bokkoon ci benn troupe bu ñuy wax kii. Euh, mhm. kii waay troupe bi nekk foofu noonu fa mm-hmm. ceddo ceddo waa mm-hmm. mu bokkoon ceddo mm-hmm. mu nekk foofu noonu nekk foofu nekk foofu noonu ba benn instant bu ñëwaat fekk man bàyyi naa affaire u yooyu noonu maa ngi dem continuer suma liggéey nekk ci suma liggéey ma wàcc mu ñëw sama kër ne ma Cheikh man kat damaa bëggoon ñu taxawal troupe bi ma ne ko ah idi est-ce que loolu noonu dina kii mu ne ma waaw mu dajale ay xale yu ndaw nag ma ne ko waa kon ngoon su ma wàccee dinaa ñëw saal ma ñëw saal bi fekk fa ay xale yu ndaw mu ne ma ñii ñoo fi nekk gum comme que comme que euh, troupe bi tas na damaa bëgg ñu taxawalaat troupe bi ma ne ko kon aca moom mu nekk le metteur en scène man ma nekk président bi mm-hmm. ñu nekk di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey liggéey di liggéey ba génération boobu noonu tamit mm-hmm. euh, tasaat mm-hmm. mu des man ak moom loolu moom moo formé suñu duo man ak moom loolu moo indi Cheikh Sarr ak Idrissa loolu moo indi Cheikh Sarr mm-hmm. ak Idrissa loolu moom moo indi suma duyoo ak moom mm-hmm. ñuy dem di dem di dem di dem di dem ba benn instant ñu créer benn fóot parce que euh, faute bi sax bi ñu koy bi koy créer dañ ma tuddee woon euh, benn spectacle fii nii Tëngéej mm-hmm. euh, ma nekkoon parrain bi ñu dem léef nañu nag il faut ngeen jouer léegi nag ñu nekkoon léegi nañu créer loolu bi ñu créer loolu nag affaire bi di dem di dem di dem di dem di dem ba ñu si nekkoon yëpp dem mu des man ak moom ñu def ko duo Balla Diop seetaan loolu moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax moom Balla joob mhm. maa ngi koy nuyu bu baax Balla sama xarit a ngi noonu moom tamit ku jàpp sama carrière la ñuy dem Balla ne ñu Balla ne ma César dama lay invité Abba Show mu ne ko Abba Show mu ne ma waaw mu ne ko waaw ah man de duo laa parce que man ak Idrissa mu ne man moo yow kese laa bëgg invité ma ne ko non man dioo laa quoi man ak Idrissa mu ne ma kon waa baax na ñëw leen ñu ñëw répétition cosaan fekk ñu fa Abba fekk dafa voyagé moom tamit maa ngi koy nuyu de passage moom dafa voyagé euh, l'homme moo ñu doon filmer ci répétition yi après Abba ne waaw ñaari booy yi nii ñan lay ñu ne ko Cheikh Sarr ak Idrissa mu ne oh ñaari booy yi nii mën nañu Bala Diop foo lëkkatee nii Bala Diop ne ko ci banlieue bi comprendre ne ko ok léegi yàlla dogal abaa ñibbi si France mu ñëw fekk répétition cosaan mm-hmm. ñu répété ba pare mën ak Idrissa abaa abaa ne léegi nag nañu waxtaan abaa show dina changé te buy changé ñaari booy yi nii ñoo koy changé ci mm-hmm. télé laay wax mm-hmm. du ma wax lu amul benn sélection abaa show la bokkul benn te loolu man entendu benn bi ñu commencé Abacho ba léegi benn sélection Abacho la ñu bokkul man ak man ak Idrissa mm. te loolu malentendu la mm-hmm. boobu kese te am na ñu bëri ñu ñu fekk Abacho am na ñu bëri ñu ñu fekk Abacho Idrissa nag moom a njëkk a dem Abacho mm-hmm. moo a njëkk dem Abacho boobu mm-hmm. Aba mi ngi nekk 2STV léegi nag bi mu demee gis concept bi sax parce que avant moo dem sax waxtaan nañu man ak moom. Mm-hmm. comprendre nga mu ne man damay dem mais man lii xaw ma ko mën a ko nooyu defal lii ak lii ak lii sax parce que humour la rek. Mm-hmm. humour moom méttiwul comprendre histoire ngay jël créer ko ba mu cool après ñu dem. Mm-hmm. mu dem ñu gis ni cool na après abaa nag mu ne ma dama lay invité ma ne ko man dioo laa ak Idrissa ñu ñëw. loolu nag moom moo indi dio bi ñu dem abacho comprendre nga def fa fóot bi defaat fa euh, circulaire bi mooy policier yi defaat fa ñaari xama mm-hmm. euh, kii bi gardien bi mm-hmm. ak paa bi ndekete man maa ko jur comprendre nga mm-hmm. yooyu noonu ma jóge dëkk ba ñëw di ko xool si ndek di ko xool si ndekete man kii kii ma interpellé nii mooy sama doom te xaw ma ci woon dara léegi surprise boobu noonu gars yi xam ni ndekete ñii ñu ngi liggéey quoi voilà lii moo indi

kii waaye yow sama benn xarit daal moo jógee màkk yow eh nee na simis alaaji la ma indil dama bëgg na nga fuutul ma ko fuutul islam waaw ndax gis nga mag boo koy fóotee eh da nga koy xëyee ba pare nga soog kaa fóot dégg nga am benn problème waaye damaa bon xol lii soxna si moo wayaasi bàyyi ko ah, ah ah ah ah waay ah ah ah ah ah waay ah ah ah waay ah respecté leen ma tuuti soxna si moo wayaa si bàyyi ko fi envoyé na ma vocal nag nee na ma carrément na bokk ci fóot mi moom sax lim ko sol bëriwul 15 jours rek la ko sol 15 jours. macha allah euh, pot mi moo nekk noonu seex euh, fii gis nañ nga jël li nga xamante ni ne nga ñu baal ñu ci ci ci wax ji nga jël nga jël sa silu bu sa silu bu jabar jox ko jox ko Idrissa ni ko fóotal ma ko waa seex yow da ngaa yeb Idrissa mu ne ko fóot ko waa c'est parce que Idrissa man maa ko bind indi ko ci biir kër gi bu may liggéeyal kon donc même bu ma ko indi doon sax deru xaj ni ko fóot ko sax war na ko fóot sa parce que man maa koy dundal di ko fay kon lii nii sama siri bu jabar la <laughs> waaw moo ko moom te moom dafa voyagé. Mm-hmm. ma ñëw fekk ko ci fóot fóot mi mu ne ko léegi lii fóot ko te sax moom sax lim ko sol bëriwul. 15 hmm. jours la ko sol 15 jours bëri na de. macha allah li ko xool xam ne ñu am talent lañu wax dëgg yàlla gis nga ñi nga xamante ni ñoo nekk Abasso ree nañ wax dëgg yàlla bay bëgg a dee macha allah léegi seex daaray duniya bi nekk fii nan ngeen def ba taxawal ko. waaw daaray duniya bi nekk fii euh, Cheikh Ndiaye. Hmm. Cheikh Ndiaye mën naa wax ni sama doom la. Hmm. sama jarbaat la. sama apprent la. sama rakk la sama lépp la. dama toog bis mu ñëw ne ma Cheikh te parce que temps yooyu noonu maa ngi maa ngi maa ngi focus ci ci humour bi. Hmm. mu ne ma Cheikh dama bëggoon ñu ubbi fii nii troupe comme que booy yi bëgg nañu théâtre nangam naa man ne ko Cheikh Ndiaye man amatuma jot boobu noonu. parce que man maa ngi focus ci sama carrière. Hmm. parce que troupe dafa bëri coono. Hmm. ma ne ko léegi dinaa la booleek mbay Ndiaye. dañ ko dinaa la booleeg Mbaye Ndiaye. Mm-hmm. demal demal troupe Mbaye Ndiaye yëg naa ni ubbi na troupe demal foofu noonu. Mm-hmm. ngay répété foofu parce que man ak Mbaye Ndiaye benn lañ boo nekkee ci Mbaye Ndiaye dafa mel ni. yaa ngi fii mm-hmm. mu ne ma waa baax na mu dem foofu commencé répété ba mu yàgg bu ñëwaat mu ne ma Cheikh man daal su ma sañoon daal euh, ñu def suñu yëfi bopp. ma xam ni kii bëgg na mu dajale xale yépp ñëw sama kër ñu toog ma waxtaan ak ñoom ma ne leen léegi baax na comme que gis naa ni bëgg ngeen dinaa leen jàppale. ñu commencé di répété mu ne ma léegi tur bi naka lañ koy tuddee ma ne ko benn tur fi am muy daaray dunya nañ ko menti mu ne ma sax parce que mu ne ma man sax xale Cheikh Sarr laa bëggoon ñu tudd ma ne ko déedéet mm-hmm. nañ tudd daaray dunya parce que daaray dunya tur boobu noonu moo fi nekkoon te boobu la ñuy maintenir ba léegi mm-hmm. seen Ndiaye moom mooy initiateur bi xam nga bële mm-hmm. deuxième euh, kii bi demba woon Demba la woon Idrissa mm-hmm. Idrissa moom moo initié woon lool mm-hmm. noonu mm-hmm. moom moo ñëwoon ci ci man waxtaan ak man mais cette fois ci troisième génération bi Cheikh Ndiaye moom ñëwaat ci man waxtaan ak man mu convaincre ma ma gis ni ñi bëgg nañu ma dem commencé leen jàppale gars yi ñu jàppale jàppale jàppale leen jàppale leen jàppale leen tëj naa leen un an ferme ci école guy faatu Mayga boobu noonu école Thierno Salif Ndongo foofu la ñu nekk tëj naa leen un an ñu naan ma waa Cheikh xanaa du ñu dem festival xanaa du ñu jouer spectacle xanaa du ñu nangam te li ma neex ci ñoom mooy que ñoom ñëpp ma leen jàngal théâtre ndeysaan ñoom ñëpp bi ñuy ñëw xamuñu woon dara. ndeysaan ma woo As Dieye ne ko As looy dàqee kéwal mu jëm àll da koy dàq mu dugg biir kër. Hmm. ma ne ko ñëwal nga nekk metteur en bi ma nekk président compagnie bi ñu encadré xale yi gunge leen. Hmm. jàppale leen. comme que tey jii yow yalla mayna la xam-xamu metteur en scène mm-hmm. man yalla ma euh, buntu mm-hmm. comprendre nga yalla ma de connaissance boy mm-hmm. boy premier spectacle anniversaire Cheikh boy def boum ah en scène. daara Dunia tekki war na daara Dunia tekki war na. Mm-hmm. as liggéey ci liggéey bu extraordinaire. Mm-hmm. dëgg neex yàlla. Mm-hmm. mu liggéey ci liggéey bu am solo. ñu nekk di nekk di def di def di def di def au moment donné après xam nga rek ndeysaan léeg-léeg nit di nga di nga di nga di nga di nga jàpp ni euh, foo nekk. boo fa jógee dafay dafay daal di doy waar. waaw te fekk ni yàlla noppi na démb tey soog a ñëw. as ñëw ne ma Cheikh man de. dama bëgg a def sama yëfi bopp ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko ah loolu baax na parce que tey jii nii moom kenn ku ci nekk boo sañoon def bopp ma ne ko ah waaye de daara dunia moom daara dunia ñëpp la Mm-hmm. ñëpp a ko bokk. Mm-hmm. daara Dunyaa moom yëfi ñëpp la. Mm-hmm. waaw amul kii moo ko moom amul kii ma ne ko man moom ma ko yow moomuloo ko Cheikh Ndiaye moomu ko sa parce que tur mu jógee la moo tax. daara Dunyaa. ma ne ko sa parce que Aziz Naar moom moo initié woon loolu. initiateur bi moom la. parce que instant bii nii nekkatu fi ñun ñoo fi nekk. amatul jot boobu noonu. na ñu liggéey rek mu ne moom moom daal li mu gis mooy que dafa bëgg waaw def yëfi boppam. ñu ko yàlla baax na. ah moom mu woote réunion man ma woote réunion mhm. am ñu nekkoon ci man dem ci mhm. am ñoo xamante ne nii nag wax dëgg yàlla ñu ngi resté ak man ba léegi parce que milieu bi Babacar mhm. buñ ko soppi millier milieu biis théâtre du milieu biis théâtre nekkul nekkul métier boo xamante nii dañuy xasante wala ñuy yàqante mm-hmm. wala kenn ku ci nekk di yàq sa moroom wala loo xamal sa morom wax ko wala di iñaanee sa morom déedéet mm-hmm. gis nga ni Cheikh Sarr mel nii mm-hmm. Cheikh Sarr mel na ko ba pare loolu yàlla moo ko def kenn mënu ci dara ni Babacar mel Babacar mel na ko ba pare loolu yàlla moo ko def kon ki nangu lu yàlla dogal doo solo sa lu jeex te fii koo yaakaar ku ne yàlla la yaakaar yàlla rek a fi ne mu def yëfi boppam ma def sama yëfi bopp xale yi di liggéey ñoom ñuy liggéey. Mm-hmm. xale yi di dem ay spectacle ba léegi ñu ngi dem ay spectacle mm-hmm. yow yaa ngi seetaan xale yi. Mm-hmm. ñu ngi dem ay formation. ñi ngi dem. Euh, ñu ngi dem ay festival. tout récemment euh, ñi ngi bokk ci benn compétition buy am tëngéej fii nii yàlla dogal na ni ñoom ñoo qualifié final seetaan naa leen si TikTok bi voilà ñoom ñoo qualifié final kon fii yàlla rek a fi nekk te ragal yëpp yàlla la mm-hmm. waaw du ma mettre en scène encore une fois mm-hmm. mais yàlla nag may na ma mm-hmm. as tuut ci xam-xamu théâtre parce que ñi ma yoroon la Mamour Thioune ku mu yor dina def ci yow xam-xam wallaahi Arko Guédiawaye ku fa ne di nga am xam-xam as ñaa ku mu yor di am xam-xam parce que as ñaa ki ko jàngal mooy kàngam wallaahi waaw te fi mu jaar Mamadou Diop moo jàngal aas ñaar. ko. ba ne ko mhm. li nekkoon ci man def naa ko ci yow. Mhm. ba pare ba pare laal si soppe tamit. ba pare laal ci soppe. Mhm. soppe sax yor nañu. kon tey jii nii maanaam ak ak déttu mi nga xamante ne nii. yàlla jagleel na ko xam-xamu théâtre lu kenn mënta miim. wallaay ñooñu nag ku ñu encadré. sa waay. Mm-hmm. te xale yi tey jii nii fu ñu toog di waxtaan tey jii nii maanaam émission bii nii. Mm-hmm. su ma jógoon seen Ndiaye toog fi. Mm-hmm. dina wax loo xamante ni yow danga naan kii eh, non non c'est pas macha allah parce que loolu yàlla dogal na def naa ko ci ñoom. du ko ndamoo nag. mbaaxu yàlla la de. parce que tey jii nii man exercice bu dul bu dul exercice su. théâtre def naa ko. te defal naa ko sama xale. macha allah defal naa ko sama xale yi kon nag. ñoom Daaray Dunya li ma leen di dénk mooy que ñu gën a góor góorgóorlu. ñu gën a jàppaat. daaree dunya mhm. te xam ni lii moom mooy seen sens mhm. waaw lii moom mooy seen sens mhm. loolu bëgg naa bëgg naa bëgg naa bëgg naa ñu xam ko leen sant nag bu baax a baax a baax a baax a baax parce que xale yi ñoom tamit mënoon nañoo wax ni dañuy topp ñu la dem mais gis nga ànd ànd ak gor rek a wóor parce que bu méttee du daw macha allah booy ànd àndal ak gor parce que boo àndee gor bu mettee du macha allah loolu am na solo àndal ak gor su méttee du daw ba léegi rek yéen a ngi seen émission man la kan ci fi nga xamante ni moom mooy télévision RMB TV télé bi nga xamante ni moo xew si jamono kon Cheikh su ma la déggee moment bi ñu toll nii kon Daaray Dunya dañoo séparé wu moment bi ñu toll nii ci côté ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci compagnie bi parce que su ma xoolee festival bii passé mhm. damaa seetaan Daaray Dunya mais góor rek laa gis. Mhm. kon xanaa jigéen ñi ñoo topp aas. déedéet. nee na mi ngi fa. Hmm. Khadija sama jabar mi ngi fa. maam hmm. euh, mi ngi fa. Hmm. Euh, Rama mi ngi fa. ñeenti jigéen yooyu noonu. laa dese. ak nday faatu par yenn saa yi mu ñëw par yenn saa yi mu ñëw. comprendre nga mais ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo régulière. instant bii nii ñooñu la quoi. comprendre nga euh, ñooñu ñoo ma topp ñoo ñooy ay gor. mais est-ce que tamit jotul euh, euh, Cheikh Sarr ngeen toog ngeen wat ngeen waxtan ñooñu ñëwaat ngeen continuer parce que wax deug yalla ngeen bolo liggéey mom mo gën ku nek séparé wu. waaw xam nga tay jii nii mm-hmm. bu nekkon sax divergence bobu non mm-hmm. wala xaajaloo bobu non mm-hmm. man mako sak won ñu mëna wax mais as mag la. magu bopam la. peut-être mom lolu moko arrangé. peut-être tamit xalé yi nekkon ci man. ñu top ko. lolu mo len arrangé. te xalé yi kenn ku ci nekk. billaahi wallaahi Serigne Babacar si rek laa gëm. Mm-hmm. te moom laa yaakaar. Mm-hmm. xale yi seen yaay moo ma leen joxoon kenn ku ci nekk bi lii amee damaa dem ba sa kër. sa yaay toog ma toog ma ne la lan moo tax tey ñëwuloo ci réunion bi ma woote woon. Mm-hmm. nga ne ma man kat ci réunion ASBA laa demoon ma ne la kon bàyyi nga. ne ma waaw ma ne ah eh, soxna si dégg nga kon sa doom nekkatul ci sama ay responsabilité macha allah noonu laa ko defee ñoom ñëpp si seen yaay. Mm-hmm. ci jigéen ñi. Mm-hmm. ci jigéen ñi. Mm-hmm. noonu laa ko defee ñaari seex yi dem naa ba si ba si yaayam. wax leen ko. joojo dem naa ba ci yaayam wax ko ko. comprendre nga euh, fasaa yaayam mi ngi Jurbel moom moo fi nekk comprendre te yaayam. man la ko dénkoon. man maa ko dalal sa parce que fasaa. Kassine la ñu gisante. mu dëkk Texaco. ma dëkk ñetti baax mm-hmm. yaa ngi dégg. ñu mm-hmm. gisante Kassine foofu noonu après mu ne ma moom Texaco lay ñibbi. mu ne ma mm-hmm. ñoo bokk koñ noonu ñu échanger numéro waxtaan noonu nangam nangam. ba ni muy bokkee ci compagnie bi seen waa kër tuxu tuxu Jurbel bàyyi ma ak moom. moo tax sànq ma ne la booy ànd ànd la gor xale yooyu noonu dama leen gis mukk di sëgg sa parce que man maa def ci ñoom théâtre macha allah am na solo loolu wax dëgg yàlla loolu am na solo di ñaan rek eh, yàlla na yàlla def jàmm bu baax a baax si ñaari côté yëpp parce que tamit eh, olof danaan ànd neex na waaye koo bàyyi tamit mu dem ak ay mbaggam waaye na lépp rek rafet parce que théâtre amul xiiroo amul ŋaayoo amul teesante amul jëwante amul dara comme ni ñu ko waxee théâtre sa la théâtre mm. théâtre c'est le théâtre ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax euh, Cheikh comme li ñu ko waxee léegi léegi euh, ñu gis ne ne yow ak Idrissa li ngeen di diwoo bari na trop te ñu baree bëri bari ñu ngi wax seen i diggante ñaar soo ñu doon wax sa diggante ak Idrissa ndax yéen ñaar am na ko si tuddee kenn doom. waaw Idrissa mu ma tuddee doom. Mm-hmm. waaw Idrissa maanaam man dama naan Idrissa man papaam laa. Mm-hmm. nijaayam laa magam la mm-hmm. léppam laa. parce que Idrissa bi daaray première euh, première génération daaray dunia fekk bo mi ngi nekk xale bu ndaw mhm. moo doon indi basang yi di ko téye comprendre mhm. euh, suñu saaj ñu doon def suñu ay accoutrement mhm. moo ko doon gàddu di ñu jiitu jiitu répétition bu ñëwee lal basang bi nangam nangam bale saal bi toog di ñu xaar bu metteur en bi ñëwee da koy dàq su ko dàqee man maay dem ñaanal ko njekk ci noonu lañu la ñu àndee. Mm-hmm. ñu bokkaat benn daara parce que biir kër maamam bi jur yaayam. Mm-hmm. dañ doon jàngee alxuraan. te moom ci biir kër googu noonu fa la fawee. Mm-hmm. may ànd ak nijaayam naan Seex Ndaw euh, moom laa doon àndal yàlla dogal Idrissa man ak moom maanaam ñu bëri dañoo jàpp ni théâtre moo ñu boole. Ah. parce que man damaa demoon ba ñu jàpp ni maamam. maamam bu góor. moo ma jur. parce que maamam bu góor tamit bokk na ci ñi ma jàngal alxuraan. parce que. bi su ñu sëriñ demee moom moo moom moo ñu woowaat. di mm-hmm. ñu jàngal alxuraan. Mm-hmm. bokk naa ci ñi mu mm-hmm. kon tey jii nii seen kër maanaam du ma fa jàmbur. foofu laa doon fanaan foofu laa doon añee foofu laa doon sangoo foofu laa doon defee lépp. kon man ak moom théâtre boolewuñu. maanaam théâtre dafa daf ñoo daf ñoo dab. ñoo dab mais nekkul ni loolu moo ñu boole. nekk sama mu nekk sama lépp nag. xam nga ku la tuddee doom bañu la. nga ku la tuddee doom bëggul sa tur fay mm-hmm. te maanaam yooyu noonu yëpp man ak moom séq nañ ko mm-hmm. te mu doon ànd bu rafet ba mm-hmm. suñu joonu yàlla mii tey waaye nag ñi xamul dañ naan waaw Idrissa ak Cheikh dañoo am problème Cheikh Sarr dong la ñuy gis fii sa kese la ñuy gis fii nangam nangam mais man ak moom du ñu réeroo Euh. lépp lu muy dugg daf may woo ne ma ah frère man kat maa ngi waaj a dugg ci nangam nangam. ma ne ko euh. ok man tamit lépp lu may def dama koy woo. Euh. ne ko frère maa ngi def ci nangam nangam nangam. ànd nag noonu lay demee. parce que ñun ñaar ñëpp ñu defandoo nii. il faut kenn dem am ku xaar. comme moom yàlla dogal na. ñu ngi ci télé. Mm-hmm. ak rajo di def émission maa ngi koy mm-hmm. ñaanal yàlla yàlla ko yàlla gën a yokku comprendre yàlla succès bi gën a yokku mm-hmm. man su ma amee ay produits yoo xamante ni sentir naa ko dama koy woo ne ko booy kaay ñu def comment ñu sa sa parce que man ak moom bu ñu booloowee di def ci lay gën a neex comprendre nga tey jii man mun naa jouer spectacle sans moom. Mhm. moom tamit mun na jouer spectacle sans mhm. mais en bu ñu booloowee. dafay gën a léegi nag loolu nag lu bëri ñu bëri xamuñu ko dañ naan amuñu am benn problème. amuñu benn problème Abba rek a doon neexal noonu rek di wax loolu moom. <laughs> macha allah moom Abba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax foofu rek euh, laay jaaree fi nga xamante ne moom moo nekk Idrissa ak Cheikh Sarr ma joxaat leen élément bi nga xamante ne ne lu doy waar la. ñu xol Idrissa ak Cheikh sar ci li nga xamante ne moom mooy ci tali bi te ñëwaat. circuler circulé yow moo wax bi circulé ma wax bi circulé circulé moo fi am yow dèjà yow yow yow yow yow yow yow dèjà rek yow embouteillage nga yow dèjà ndax yow mënoo wax yow mënoo wax yaa ngi dégg aw man ku ma ku ma ku ma nekkee amu amu embouteillage yow loo doon ay wuy ma waaye yow koo koo koo koo koo koo koo koo koo jóge sax yow ah fan fan nga jóge laa wax ok man fi ma jógee foofu ma doon monter dafa am xew dafa am tay tànn biir mënu ma faa monter léegi nag comme que fii ngay monter te yow yàlla dafa dogal nga handicapé vocal léegi damay ñëw monter fi ak yow léegi yow gérer super yi man ma gérer taxi yi. engrais ah, que eh fat fat fat fat fat fat see awut angaat ah, ah, fas xanaa eh amal amal amal ca côté nga bàyyi maag amal amal wax dëgg yàlla vraiment lii si tooñ la bokk noonu rek la ñuy fàttali gars yi bu baax a baax dafa mel ne am na koo xamante ne moom moo nekk fi nga xamante ni moom moo nekk ci ligne bi noonu la ñuy def rek daal di jokkoog moom bu baax a baax daal di déglu ki nga xamante ni ne moo woote salaamaaleykum. maaleykum asalaam. waaw ñu ngi fi di sant alhamdulilah. macha allah ñu ngi lay jaajëfal tur bi ak sant bi. Muhammadul Amin Silla ok wax kosong lawan koo Sar, woon Cheikh Sarr waa Cheikh mau lagi lay déglu hmm, lay Mm-hmm. Hmm. Hmm.

allo allo allo waa Ahmed waaw man kontaan naa de <laughs> kontaan naa bu baax kontaan naa bu baax ndeysaan ndeysaan yow Mor wéroo sa tur bi bëri de <laughs> waaw ñaata mm-hmm. mm-hmm. yaa ko jëkk ñëw teg ko fi ñaata yàlla na ko yàlla def kon waaw mm-hmm. waaw waaw foofu laa bëgg a ñëw moor moor ana xadi ana xadi waa ana xadi ana xadi ana xadi ana xadi day nelaw ana nenne ana nenne ana nenne nenne nenne waaw Cheikh Ndiaye dolli ziar Cheikh mu lay déglu hmm. jërëjëf dëgg la dëgg la. Mhm. macha allah. dëgg la macha allah. macha allah. Mhm. macha allah. Mhm. Masya allah Masya allah. Masya Allah. Allah. allah def allahumma amin amin macha allah ñu ngi leen di jaajeufal bu baax yeen wa daara yu dunia yépp merci Kontan nañ bu baaxa baax ngeen ngeen nuyul ma sama jigen bi tamit nene bu baaxa baaxa baax cheikh loy wax ci li waaw ndaysan contane <laughs> na wax deug yalla parce que xalé yi euh samay samay nit lañu mhm. parce que sama vie lu ci bari ñi la koy partager mhm. parce que man awma lu dul dunia mhm. awma lu dul yu dunia awma lu dul kon sama vie lu ci bari ñii laa euh, waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi yow la kan. Demba maa ngi lay ziare. ndeysaan am jàmm bu baax. waaw yéen a ngi am jàmm bu baax a baax. waaw tawféex Cheikh mu ngi lay déglu. waaw ma ne. Mhm. Demba. gis nga moom moo ñu yàlla. jëf mhm. si ñun loo xamante ni kenn ñun mhm. mënuñoo dem fu ne. Mhm. ñun suñu neexoon tey jii tey jii bu ñu amee ndigalam du du suñuy saal ndax xam-xam boobu def na ko suñu bopp. ndeysaan. muy jàmbaar. Mhm. muy ko bëgg boppam. ay day xañ ay day xañ famille am bu jël xaalisam def ko si compagnie bi nga xamante ni depuis moom dugg na si théâtre très vite. ma bàyyi gaañoo ci moom laa wéeru moom laa xam. man moom maa dem jënd suuf si yasa. macha allah moom laa bëgg. Mhm. xam nga tey jii maa ngi wut ñëpp a ngi siiw. Mhm. ëllëg a tax man moom laa bëgg. ndeysaan. te bëggoon tuuma de. Mhm. damay yedd. damay conseil. damay jox xaalis. damay defar tànn bu bare bare suuf loo xamante ni du ko yëg. macha allah. Cheikh wóolu ba nga ñëw dara faaru wala li ba sol moo ngi indi ki njabootam. moom mm-hmm. la ñu xam ne bu fukki mètre en seen taxawee. bu ñu waxee da ngay dund waaye keneen la ñuy gën a favoriser mooy Cheikh Sarr daanaka ci garab bi bette bette bi ci kii kan bi bañkat bi. ñu ngi lay jaajeufal bu baax merci beaucoup Demba ñu ngi lay jaajeufal bu baax merci merci beaucoup jërëjëf macha allah li yaakar naa ne dafa neex macha allahu rabbi cheikh yaangi won fi nga xamanteni ni xalé xale yi xalé yi ndeysaan bu ñuy wax ni sax <laughs> sama xol day toy quoi parce que mhm. ndeysaan ñom ñëpp kenn ku ci nekk daf euh, da nga am lu séq ak man mhm. euh, te séquma ak sa morom kenn ku ci nekk nag ci ñoom parce que kenn ku ci nekk xam naa naka laay dundee ak moom mais demb mii nii ñun mm-hmm. ñëpp maanaam daara bi ñaa ñëpp mm-hmm. maanaam wala boog milieu théâtral ñëpp d'accord nañu ni mm-hmm. sama doom la te te te loolu la yàgg a wane te loolu la gëm man may papaam loolu la gëm comprendre kii sama doom la demba demb mii sama doom la te loolu ñëpp xam nañ ko sama doom la eh, maa ngi koy ñaanal yàlla nag waaw duma ko gërëm a gum nag parce que dama koy ñaanal yàlla. Hmm. Eh, yàlla na ko yàlla musal ci ndogaan ak pàkk. Hmm. parce que ñoom ñëpp nag daara dunya yëpp nag maa maa ngi leen ñaanal yàlla ñoom ñëpp. Hmm. yàlla na yàlla bàyyi leen ñu yeggali ak seen ak seen sago. amiin yaa rabbi dafa mel ni am na keneen ku nekk ci ligne bi. Ah, wax dëgg yàlla tey moom waa daara dunya yaakaar naa dañoo rakkaaju salaamaaleykum. maaleykum salaam. si maa ngi lay nuyu di la ziare. kooku kooku kooku sama jigéen la sama doom la madame Diop macha allah euh, Cheikh Sarr a lay dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. amin amin nenne yow yow tamit nenne ñu ngi contane ci yow bu baax vraiment yow ñu ngi contane ci yow bu baax yow tamit nenne contane naa bu baax kay ndax nit ku baax nga xalé bu yaru nga xalé bu am xalé bu am respect nga xalé xalé bu téé sa bop nga yow ak soxna xade ak fa nek ñepp parce que lolu man tamit mëna ko seede bu baax ndax du tay yag nañu bu baax jëre jëf contane nañ ci yow nenne waa kay jërëjëf merci beaucoup akay merci macha allah. seex tey ki nga xamante ni moom mooy Néné. Mhm. tey nekk soxna soo xamante ni macha allah ku taaru la. Mhm. kaar mhm. nekk ci métier bi. te mësuñu koo xamal lu ñaaw. yar boobu nga ko yar. waaw parce que man euh, Serigne Moussa mooy sama Serigne. Euh, ma nekk Moustarchidine. Euh, di nuyu sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy mm-hmm. hafizahullahu wa ayadahu wa raa mm-hmm. di nuyu suñu capitaine maam Cheikh Ahmad Tidiane capitaine mm-hmm. parce que man yar bi sëriñ Moustapha si def ci man moom laa bëgg a ko ci sama njaboot ñoom ñëpp yar naa leen ci ba sax bu ñu bëggee bu ñu bëggee dem toilette dañ dañ ma naan ma papa Cheikh dama bëgg a dem tuuri ci ndox te loolu sëriñ Moustapha moo ñu yaree noonu. Mm. baatu baatu baatu baatu maa ngi jégalu baatu saw ci mbedd sax. rus mm. nañ kaa wax mm. maa ngi dem tuuri di ndox. la ñuy wax nen ne sama doom la. parce que matuma ko papa sax de mais. Mm-hmm. Euh, yaayam ak suma yaay. ñoo doon ànd ñoom ñaar ba ñu ba ñu tuxu maanaam nen ne théâtre moo ñu xamalewaat. Mm-hmm. mais man moom gëjoon nañu gisante. Mm-hmm. mais théâtre moo ñu xamalewaat. dama ko fekk ci benn corps mu joué man xaw xaw ma ne woon ni sax ni. dafay joué théâtre mm-hmm. ma gis ko mu joué affaire yooyu noonu xam nga affaire bi am fugg mu ne ko ah kon yow comédien nga mu ne ma waaw man de damay théâtre mu ne ko ah ko kon baax na kon lii de musuma ko woon xam ci yow talent bii nii ma gis tey mm-hmm. musuma ko woon xam ci yow mais après ñëwal kër gi ñu waxtaan mu ñëw kër gi ñu waxtaan mu ne ko léegi naa la yóbbu saal mm-hmm. produit bu ma am dama ko ciy dugal moom nee na sama doom la dafa mel ni am na kuy woote waaleykum asalaam yal na yàlla nangu ziar ko kan la ak sa baay ji la ñu ngi lay nuyu di la ziar seex mu ngi lay déglu sant yàlla bu baax baay ji li ñu ngi lay nuyu hmm. waaw allo ñu ngi lay dégg wax dëgg yàlla mu nekk suñu njiit. amin yaa rabbi mhm. mhm. mhm. incha allah yaakaar naa jii xam ñu ngi lay nuyu bu baax macha allah. waaw Cheikh yaakaar naa ne ne li ñu joxoon ci waxtu tabit wax dëgg yàlla euh, jot na. asalaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la jaare. kookan la.

mu mm-hmm. nekk émission bu am bu am solo boobu ñëpp di siiwal. macha allah. macha allah. merci beaucoup jaajëf. amin yaa rabbi amin amin amin jaajëf kontaan nañ ki doon woote nii hmm. eh, Aziz la hmm. Aziz eh, moom tamit eh, sama gaayen la hmm. moom tamit scénariste la Euh, mu nekk scénariste boo xamante ni am am na samay sketch yu bëri moo ko bind comprendre nga euh, bind na ay série pulaar yoo xamante ne ni hmm. mi ngi daw hmm. en travers pulaagu hmm. en travers euh, ci ci ci ci ci kiiwu pulaar yu bëri gars yi xam nañ ko bu baax a baax moom tamit jàmbaar la mu nekk xam nga xale bu sa loxo setee rek nga mën a bokk ak mag ñi moom tamit mu nekk ko cool mu nekk sama complice waaw mu nekk sama complice. Mm-hmm. Eh, mu nekk sama doom bàjjen en même temps. Mm-hmm. mu sant Thiam sant Sarr. Mm-hmm. mu nekk mu nekk tuglóor. ma nekk séeréer comprendre nga. waaw kal yi c'est parce que man bu ma seen kenn du noppi comprendre loolu tamit mu nekk loo xamante ni lu lu lu. lu cool la wax dëgg yàlla moom tamit mu nekk boroom xam-xam. Eh, ku ñu nangul la ci milieu bi yàlla na ko yàlla jàppale. yàlla suturaal ko. sama gaañ la moom. yow ak waaju baax. Eh, li may wax ci moom mooy ku baax la. Mm-hmm. dafa wuyu turam ju baaxu ku baax la. Mm-hmm. parce que dafa wuyu turam moom tamit ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax di ko këram mm-hmm. parce que nit ku mën a partage la. parce que nekk nañu trois mois ci benn kër. kon tey jii nii kon li may wax nii dama ko dund ak moom moo tax. nit ku baax la man ak ñoom Maajoor ñoom Baay ñoom Ñamaxiit Riise comprendre nga ak Seydou ah. ak eh, Jibi Saar muuma mm-hmm. mi interprété muuma mm-hmm. ñun ñoo bokkoon benn benn kër gu ñu nekkandoo woon mm-hmm. Thiès kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñooñu ma lim yëpp wax dëgg neex yàlla Babacar man kontaan naa eh, eh, sama xol sedd na parce que tey jii nii mënoon ngaa ni Cheikh Sarr dafa soof duma ko invité mais danga ma invité ma ñëw ci sa émission bi te bi ñuy déggante sax maa ngi lay wax ni la ni dama mhm. grippe mhm. parce que temps yëpp maa ngi woon tournage mhm. sonn ba bëgg dee mais koo xamul noo koy defee nam la dafa tax parce que yow da nekk nit koo xamante ne nii modèle nga ci millier bi te koo invité mu ñëw rek yow yaa ko liggéey wax dëgg neex yàlla te ku ne xam ne ni jamono ñu jot amul koo invité mu ñëw rek yow yaa ko liggéey parce que ñun dañoo am inspiré sot suñu nit fu mu nekk dañ koy bëgg a jëmmal dañ koy bëgg a sotle nga nekk koo xamante nii bi ma la xamee ba léegi nii laa la xamee def nga ay projet woo ma mm-hmm. comprendre nga ma ñëw comprend nga nga yëkkati xaalis bu bëri jox ma kon yow tey jii nii dama lay sant di la gërëm te boobu sax turu Cheikh Sarr bi demeewul woon nii mm-hmm. mais yow da nga bëgg maanaam di da nga yàgg bëgg euh, euh, euh, di fekk ay jeunes talent di leen fësal mm-hmm. kon tey yàlla sa xol lekk la la fay damay ak Fodé Sarr Mm-hmm. sama xarit la maa ngi koy mm-hmm. nuyu moom tamit mu ne ma Cheikh Sarr mm-hmm. mu ne ma yow bu la neexee nga ne yàlla na ma yàlla fay sama xol mu ne ma yow am nga fitu wax loolu noonu sa parce que yàlla bu la fayee sa xol rek waaw mooy loolu yow tamit am nga fitu ñaan yàlla yàlla na ma yàlla fay sama xol yow am nga fit boobu noonu parce que sa xol dafa rafet bi ñu nekkee ba léegi yaa ngi def liggéey bu rafet mm-hmm. liggéey bu wér liggéey bu extraordinaire mm-hmm. boo ñu fekkee ci ci ci ci milliers yi mm-hmm. dañuy jox suñu wàccuwaay kon yow tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu sama yaay di nuyu Serigne Moustapha Gaye borom Saam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Serigne Abdallah Diouf moom tamit bu baakha baakha baakha baakha baax a baax a koy nuyu bu baax Serigne Abdallah Diouf hmm. Serigne safa Gueye borom sam maa ngi hmm. koy nuyu bu baax parce que màggal bi passé kërëm lañu dal hmm. man ak ñom nday ami comprendre nga ak ak ak ak Mour Sarr xam ñu dal fa ndeysaan sëriñ bi bernel ñu ba macha allah ma jël wa daara dunyaa yëpp yóbbu leen waaw wa daara dunyaa yëpp ma yóbbu leen ci sëriñ bi sëriñ bi ñaanal leen kon sëriñ Safa Gueye borom Sam ma ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal yalla sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam mm-hmm. ba mbébét bi ñu am ci ñun mm-hmm. mu def ko mm-hmm. ndax man awma ku sama yaay man awma ku sama yaay sama yaay moo tax may liggéey sama yaay tax may dantani sama yaay tax ma jël soxna pour noppal ko parce que sama yaay mën naa wax ni yaay yépp sama yaay itam loolu am naa ci droit sax parce que suma yaay la mm-hmm. kon Babacar maa ngi sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. di sant waa Daara Dunya mm-hmm. ñi bëggoon a dugg te mënuñu dugg te xam ni ligne bi la mu ko saturé eh, yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm defal ñu jàmm yow tamit yàlla yàlla sàmm la ba succès bi gën a yokk ba li ci kër gii di RMD TV yàlla defal la ko yàlla yokk leen ñëpp suñu cadrice bii nii. Mm-hmm. moom tamit bu ñaawul bi mm-hmm. ñu ngi koy ñu soxna Asi soxna Asi. Mm-hmm. Ah, suñu caméra wóomeen bi. ñu ngi koy sant bu baax a baax baax. na jaajëf macha allah rabbi lii leen leen indiloon ci li nga xam ne moom mooy euh, seen émission yow la kan fii ci RMB TV tele bi nga xamante ni moo xew si jamono yaakaar naa kontaan ngeen seen xol sedd na tey jëlee ngeen fi tamit xam-xam bu baree bare bari ci wàllu théâtre ci wàllu viom ci li nga xam ne mooy comportement doomu aadama ndax seex soo ko déggee rek di nga xam ne artiste comédien bi artiste comédien bu ñu yar la artiste comédien bu ñu éduqué la artiste comédien bu jàng alxuraan la ku xam lan la yàlla wax bu baax a baax a baax kon bàyyi leen xel bu baax ne ne métier biir di théâtre nekkul fo nekkul caaxaan ndax na am na ay imam am na ay oustaz am na façon yu nit yu nekk yu nekk ci biir métier bi kon fii rek nañu jaar rek di leen jaajëfal incha allahu rabbi di leen dox dig daje incha allahu rabbi si beneen jeudi ak sama beneen invité si émission yow la kan di fàttali nag Sali Samb sàmbeen bi sama jigéen boobu sama xarit boobu macha allah maa ngi lay nuyu du ma tayal di ko wax maa ngi lay nuyu baax di la jaar teela ñàkk yaay rek laay jooy si yow di nuyu Mami Fall di nuyu bu Diallo mm. di nuyu Yaamaane di nuyu Rama Boy di nuyu biti Béti Ndiaye ma kenn yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di wax ne ne sori naa leen tasaaroo ngeen waaye chaque jour xol baa ngi si yéen duma leen mës a fàtte maa ngi leen jaajëfal bu baax ba beneen yoon incha allah